duggee si biir alliance pour la république APR ba léegi mosul soppi doxalin fa mu taxaw la taxaw ba tey di jàppale njiitu réew mi Macky Sall si projet bu mu sumb Aly Ngouille Ndiaye bokk na si kàngam yi njiitu réew mi mën a tànn ngir ñu wutu ko sa bopp coalition Benno Bokk Yaakaar maire bu Linguère donte ni jot na am ay jafe-jafe ci biir mouvance présidentielle ndax toog na ay weer yoo xam ne génne woon nañ ko ci gouvernement bu réewu Sénégal ba jonn yàlla tey bokk na ci soldat yi gën a xarañ yoo xam ne ànd na ñook njiitu réew mi Macky Sall ndox ndoxteel ba ba léegi. àndam ak njiitu réew mi Macky Sall mu ngi tàmbali ci atum 2012 bi Aly Ngouille Ndiaye jëlee dogal ne dafay jàppale waa coalition Macky 2012 jaarale ko ci mouvement bu mag ba mu am sa Linguère di mouvement pour la renaissance du Jolof mouvement bu ñu samp ci atum 2007. atum 2013 mu jëlaat beneen dogal seyal mouvement am boobee ci biir coalition au pouvoir Aly Ngouille Ndiaye mu ngi juddu fukki fan ak juróom benn ci weeru août atum 1964 bokk na ci apériste yi nga xam ne dañoo teel a wane seen bopp. xarañteefam ci wàllu politique ak résultat yu am solo yu mu am sa Linguère foofee nga xam ne fa la fekk baax nekk fa maire atum 2013 ba jonn yàlla tey bokk na ci li njiitu réew mi Macky Sall teel ko wóolu ci gouvernement bu réewu Sénégal Aly Ngouille Ndiaye jot na fee nekk jëwriñ bu ñu dénk wàllu énergie mine industrie ci weeru avril 2012 ba septembre atum 2017 mu di nag département boo xam ne nii def na fa liggéey bu ama am solo ndax am na xam-xam gu màcc ci wàll gi gannaaw ci njàngam ba mu amee MBA si lu ñeel mbirum finance ak recherche opérationnelle sa institut technologie bu l'Illinois sa Chicago nekk sa réew États-Unis ba mu noppee sa loolee ñu tabaat ko jëwriñ gi gàll wàll biir réew mi di ministre de l'intérieur mu di post boo xam ne toog na fa diggante septembre atum 2017 ba novembre atum 2020 2020 googee foofee la jafe-jafe Aly Ngouille Ndiaye ci biir coalition Benno Bokk Yaakaar tàmbalee Macky Sall andi ay coppite ci gouvernement bi jël ministère de l'intérieur bi ci loxo Aly Ngouille Ndiaye dénk ko Antoine Félix Diome la ko ñenn ci ay naataangoom doon jiiñ jamono googee mooy ni dafa bëggoon a nekk président de la république am sax ñu jàppoon ni àndul woon ci ñetteelu candidature bu njiitu réew mi su weesoo loolee it ña doon amal dialogue national di waxtaan yañ fi doon amal ba ñu noppee ci élection présidentielle yu atum 2019 ñoom it liñ doon sàkku mooy ñu tekki ndombal tànku Aly Ngouille Ndiaye sa bopp ministère de l'intérieur lu ni mel nag Aly Ngouille Ndiaye mënu ko woon dégg ko dañu ko mujjee génnee sa boobule gouvernement waaye li ñu koy wàcc wàcc terewul njiitu réew mi Macky Sall di wéyal kóolute gi nga xam ne am na ko ci soldaawam bile li koy firndeel mooy si élection gox yeex goxaan yi doon am si weeru janvier atum 2022 Aly Ngouille Ndiaye moom moo jiite woon list benn Bokk Yaakaar sa commune bu Linguère mu di tànneef boo xam ne njiitu réew mi ki Sall réccu ko benn yoon ndax ay résultats yu ama am solo la bile coalition am sa boobu le diwaan Aly Ngouille Ndiaye jot na fi sax jiite conseil d'administration bu institut polytechnique bu Saint-Louis laata muy ñëwaat ci gouvernement bu Amadou Ba bi ñu samp fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru septembre atum 2022 ñu dénk ko wàllu mbay mi développement rural ak lii di sécurité alimentaire Macky Sall andiwaat ko ci wetam mel ni kuy jéem a rek defaraat loo xam ne ni daf ko yàqoon ci digganteem ak nit ku ko jox lépp desalatu ko dara Aly Ngouille Ndiaye nekkoon ci xolu système bu réewu Sénégal ndax jaana ministère de l'intérieur jiite boobu la département xam lu bëri ci biir réew mi tey jii bu dee njiitu réew mi ki mu bëgg mu wuutu ko sa bopp coalition benn bokk yaakaar dafa war a nekk nit ku dëggu ci doxalinam ku ko musula war Aly Ngouille Ndiaye bokk na ci kàngam yi nga xam ne am nañu seen sens ngir mu tabb leen fa tey jii nag bu dee nii ñu bëri njort nañ nii ka yi wutu njiitu réew mi Macky Sall du nekk kenn ku dul élimaanu jëwriñ yi di Amadou Ba ki fi nekkoon jëwriñ gi gàll wàllu biir réew mi di Aly Ngouille Ndiaye mën na bett ñu bëree bëri.